بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعده لا شريك له والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله بكوي تدي غناو بنو اوبيكو تي تور سونو بروم ميغا خامني موي ادي خيوالال بيب مينديف تي كاو موي ادي خيوالال كيب كوكو سوب تي ñuy sant yàlla mi nga xam ni moom yàlla amul bokkaale ci nguuram di ñaan yàlla dooti leer ak xéewal ci sunu sang Seydina Mohamed mi nga xam ni jaamam la waaye it eh, ndawam la mu yonentaam ama baad ginnaaw loolu kon mu ngi tukkee ci ilimaanu yàlla ji muy Seydina imaamillah il mahdi alayhi salaatu wassalaam ay kàddu yoo xam ni mi ngi koy jëmale ci jaam yàlla yi kàddu yooyu nag eh, ñu ànd ceeg soo Soodaan TV ngir di ko wasaare nit ki mu ko digle ndax moom moo ne képp ku dégg rek sama kàddu nag ma ko jotaleel ngir àdduna yëpp jot ci ndax message la boo xam ni àdduna yëpp la ko la ko jëmale kon nag képp ku ñun liñ ci mën mooy eh, fexe ba jël téere bi wax leen li ci nekk muy ay kàddu sang bi bañ cee boole suñuy wax waaye bañ cee wàññi wax ko ni ki mu ko waxee def ci suñu kemtalaay kàttan wesaare leen ko waaye képp ku nekk ci yéen ku dégg na ko jotalee ci anam boo ko mën a jotalee moo xam danga nekk ci groupe yi nga partagé ko ci whatsapp mbaa boog moo xam danga nekk ci facebook nga partagé ko loolu lépp fa tabaarakallaahu benn xeetu wesaare la ci it xeetu jëfe dig la sang bi la waaye it part, participer à la vulgarisation des enseignements de Sayyidina Ali C'est participer à la vulgarisation du message de Sayyidina Ali Mamou Laye Mahdi alayhi salatu wassalam te loo ko gën a ku ko dégg nga am ci yool ku ko jëfe it nga am ci yool Mom mi ngi wax ne bu kenn rek gindiko ci sa loxo Néna lolu gën ak li ci biram. kon fa e mbir maa ngokk sen mbir la waxi Seydina Limaamul Mahdi la alayhi salatu wassalam kon yeen ñi nga xamni njabotam ngeen yeen ñi nga xamni saaba saabaam ngeen yeen ñi nga xamni sax ay soppem ngeen fa na ngeen wasare wax ji ndax wax ji ay dong la am mu ne kon tukke na ci ilimanu yalla ji ñu tan ji di sangu mbinde fi jëm ci mbollem julit ñep julit ñu goor ñi ak julit ñu jigéen ñi waaye ña nga nañu ngir yalla ak mu ne mucc jàmm yàlla na nekk ci yéen ak yërmandeem ak barkeem ak ci seeni ñooñ ak seen njaboot mu ne nag maa ngi leen di yëgal li waral wax ji mooy di leen yëgal ni jotaay yi yi nga xamante ni ni dafay lor seeni boroom fii sang bi mi ngi ñuy wax ci dëj ci jotaayu dëj maanaam ci toogaay yi nga xam ni toogaayu dëj la tabaarakallaahu ndax dëj ni mu xewe léegi ci jamono li ci ëpp bidaa la loolu ci lañu sang bi yee mu wax ñu ne ne a ah, du jariñ dara maanaam jotaayu dëj yi nii nga xamante ni nii noonu lañ koy jëfee ci jamono ji mu ne du dagan tey du jaadu te it lu ñu tere la ci sharia mu ne na ngeen moytundiku yooyu la jotaay maanaam tooginu dëj yooyu jotaayu dëj yi xew yi nga xam ni moom la ñu def ci dëj yi sang bi nee na nañu ko moytundiku mu ne ginnaaw ba ñu robee way faatu ji way gunge yu dellu seeni kër ba ñu jaal njaboot gi ak mbokk yi nee na na ngeen tasaaroo nangeen ngeen teqalikoo na ngeen dellu ci seeni kër kon ginnaaw ba ñu waajalee néew bi ba denc ko gunge ko ba gunge ko ba denc ko ba wëlbatiku ba jaale njaboot gi sang bi nee na kon nañu dellu ca kër ya maanaam kon jarul tegi chaise jarul baas yooyu yëpp sang bi nee na du ko fa jar lan lañu ñu digal mu ne fa man jaa wa ada képp koo xam ni ñëw na jaale na wan sarafa mu dem duuna an yajlis walis mu toog nee na ak aktharu sawaaban mi man ada wa jalasa nee na kooku ëpp yool ki nga xam ni ñëw na jaale ba noppi toog mu ne ki nga xam ne ñëw na jaale ba noppi toog waaye ba mu toogee naan na fa dara maanaam ki nga xam ni ñëw na jaale toog moo ëpp yool ki nga xam ni ba mu ñëwee jaale na toog na waaye naan na fa dara mu ne waaye ki nga xam ni ba mu ñëwee dafa jaal toog fa naan fa dara nee na kooku moo ëpp yool ki nga xam ni fa tabaarakallaahu ba mu ñëwee jaale na toog na fa naan na fa lekk na fa ba noppi dégg nga toog fa bés walla ñaari bés walla ñetti bés mu ne ndax ñam ya nga fay lekk amaana ni sax teeyul amaana ni sax daganul ndax amaana ni kat boole nañ ca lu dagan ak lu daganul ngir fa euh togg ñam yooyu le moo tax mu ne ndax lenn ci mbokk dañu koy sàkku maanaam dinañu fexe ba togg ngir nit ñi lekk ci loo xamante ni nii du seen man-man du seen kàttan maanaam duñu ko am waaye mbooloo mi toog eh, tax na ba fu ñu mënti jaar dinañ fa dugg def pexé ba togal nit ñi jox leen ñu lek ngir lan ngir ragal ngagn waaw ngir ragal ngagn ngir ragal ku leen xass ndax ah ñom ka dejj ba dem nañu fa fa lañu ñu yend waaye lekk ñu fa wala mba bok dem nañ dejj ba tok nañu fa way lek nga doyul kon li lañu euh, sang bi lo kon nak sang bi mi ngi ñuy wax ne na ngeen moytundiku it ci jamono yu dëj yooyu yenn ŋàññante yi diw ñëw na waaye ba mu ñëwee day joxewul dara waaye gisuma diwit ci dëj bi nee na lii moo waral sang bi di tere ñu def xew-xewu dëj kon nag li xew jamono ji mbokk yu tedd yi sang bi nee na du diine wa dalika laysa bi xasanin du diine te loolu it bokkul ci islaam du dëgg te loolu jëw la te tooñ la diw ñëw na waaye ba mu ñëwee day joxewul dara mbaa boog diwit ñëwul kon eh, dëj ñi nga xam ne noonu lañ ko bëgg a defe xew ku nekk xam nga ni Seydina Limaamu ci jàngaleem dañ daan wax laaye ni kat amul ñetti fan amul jur amul amul juróom-ñetti fan amul ñeent fukki guddi lii nag li ci sang bi bañ mooy dëj ñu jël ko def ko cérémonie daf ko digle woon ñu def ko ca ni mu gën a soobre nañ ci gën a mën a toroxloo ndax la mu ca bëgg mooy aji dem ji ñu denc ko waaye gannaaw ba ñu ko dencee ñu ñaanal ko waaye gannaaw ba ñu ko ñaanalee it ñun ñi des ci gannaaw ñu bañ di eh, def loo xamante ni dafay indi àq ci suñu biir wala dafay indi xeebante ci sunu biir wala dafay indi jëwante ci sunu biir kon nag mu mel ni ki eh, njàngale la moo xamante ne nii ñu ngi koy xew a woyofal ndax boo xoolee léegi dëcc yi mbooloo ya cay nekk jéggi na dayo boo xoolee dëcc yi léegi daanaka programme lañ ko def ba ay wàllu njëkkeek wàllu ndeyaleeg yooyu yëpp ay fóot dañ ko ci boole te loo xam ni ay aadala woon ay bidaa woon te kat sang bi daf ñu ko tere woon waaye ñu ngi wëlbatiku di ci dellusi ba léegi sax programme yi nga xam ne dañ koy teg naan sikaru dëj la boo xoolee li ci ëpp la mu gën a nirool mooy ut poñetu àdduna ut xaalis góor ñeeg jigéen ñi jaxasoo jigéen ñi duñu sangu ni ko lislaam digle ñu fay maanaam wax wax yoo xam ne waxu mbóosóor la te lii la ci sang bi bañ néew ba la koy jariñ mooy la mu jëfoon ci dundam sang bi moo ngi ñuy wax nañu aji dem ji loo ko mënti saraxel nee na benn tibb bi nga xam ni saraxewoon na ko ci dundaam nee na moo ko fay ëppal yool téeméeri tibb yi nga xam ni saraxel nga ko ci ginnaawam néew bi la koy jariñ nee na mooy nga toog sa kër ñaanal ko ñaan googu nga def ko ci toroxlu yàlla mën na koo nangu kon mbokk yu yi mbira ngoog moo xamante ni nañ ci xalaataat kilifa yi nañ ci waxtaanaat ak njaboot gi ngir ñu delluwaat ci li nga xam ni moom la sang bi digle mag ñi buñ daan ma sa robi sax moo xam yoof la moo xam kambreen la moo xam malika dañ daan yóbbaale seeni gopp samp gopp ba waajal néew bi denc ko wëlbatiku taxaw sikkar jaalante ci nekk jëlaat sa gopp dem tool kon xam nga ni dajalo mbolo mi dej tax nga tok fan wala ñaari fan wala ñetti fan do liggey lolu amul won ci fa njangalem sayyidina al imam al mahdi alayhi salatu wassalam kon nañu xamni dej na xar la eh, ki dem nañ ko sante yalla ndax yalla ko mom waye nak ki am xar bu ko tegaat nakar, xar bu ko tegaat benen coono ndax dej ñaari kenn du tok di outal budget di prévoir motax sang bi woyofalal la nuko te bu nuko jëfee nii mu digle rek dina woyof ci ñëpp tey dinañ ci gën a am yoolu sunu borom fa tabarakallahu kon mbokk yi eh, ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci ànd gi nga xam ni yéen a ngi ci ànd ak soo daan TV ci di déglu kaddu yi nga xam ne dafa jaar suñu làmmiñ rek waaye kàddu sang bu tedd ba la Seydina Limaamu la alayhi salaatu wasalaam ay digleem la ay tereem la wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum ورحمة الله تعالى وبركاته